asalaamaaleykum waa Leewtoo TV ah ginnaaw bañ leen nuyoo tey nag fi leen nekk fi nga xam te ne mooy golf lu fi xew xew-xewu bànneex Salif Sakho moo am gan ñi war a dugg nag duppee leen ki ñu tuddee gan gi daa mel ni bala gay 2 moo nekk di ñëw noonu de le lion de Guédiawaye suñu alaaji bi ah borom màqatal mu karama borom ñaan yu baax yi ah Omar Sakho bi noonu kon gaa yi nañ leen dugg rek topp action bi ñu xool leen génte bi nu muy demee wala tudd bi ah. nee na ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare it nee na di jox ku nekk wàccuwaay allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamat salaat allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah Omar Sakho. nee na ñu tuddee nañ ko Omar Sakho. ko internet Leewtoo TV ginnaaw loolu Salif Sakho jël na doom bi nga xam te ne nii mooy doom bu góor tuddee ko magam bi nga xam ne mooy bala Gaye 2. Omar Sakho lan mooy sa première réaction bi la sa bi tuddee sa doom bi ñu may ko tuuti mu ñaanal xale bi andi ko. nuyoo ban ban réaction mooy sa réaction bi da sarax bi duppee doomam bi. waaw dañuy sant yàlla bu baax julli si yonent bi salaay salaam sant ñaar suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ di nuyu Sénégal yëpp di nuy àdduna yëpp àdduna la monde donc vraiment di ci am kontaan rek di ñaan yàlla xale bi mu gudd fan mu wér. mu mucc topp ci yoonu siraatal mustaqim ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal lépp lu mu waajuram bëgg ci moom rek yàlla na ko gis waaye nag di am kontaan te di ndax nga bokk ak nit ak baay mu doon sa mu yëkkati doomam ak doom nu mu ci euh, waajur mu tuddee la ko am na fum la teg te it euh, daanaka mënoo ko fay kontaan naa ci torop sama xol sedd na ci torop vraiment. Balla Gaye nga turandoo bi. waaw non nag wax dëgg yàlla bettuma nax euh, xam naa ne sama raq la te ku ma bëgg la ku ma la moo tax it vraiment bettu ma ci moom waaw ma ci moom vraiment waaw. nga jógee Màkka yaagul dara yaa ngi waaj li nga xam mooy sa combat. waaw ñu alhamdulilah ngi ci tudd. jóge naa màq waaye xam nga ne combat am nañ ko incha allah dinañ ko waajal bu neexee yàlla. lan ngay wax supporter Balla Gaye 2 yi. di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne namm naa leen maa leen raw donc vraiment maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di wax euh, saa su ne daal maa ngi leen di bëggee. waaw di leen bëggee rek Leewtoo moom macha allah suñu suñu mbir la suñu yëf la di leen ñaan a jàmm fa leen toll. waaw ñaanal sénégalais rek ñaanal sama bopp ñaanal sénégalais yi. parce que fi ñuy jógee Sénégal la fi ñu nekk Sénégal la di ñaanal naa mbër yëpp bàyyiwuma kenn képp ki nga nit rek boo ko ñaanee mu jëriñ la rek ñaanal naa ko macha allah jaajëf waay. ñoo ngi nii ah, mbokk internet Leewtoo TV ak madame Sakho madame Sakho nuyu nañ la. ñu ngi fay ah, merci beaucoup. ah sant yàlla rek. parce que wax dëgg yàlla Omar dafa nekk magam ba pare dellu nekk papaam donc bu ko tuddeewee doom ji war na ko vraiment def na lu rafet te tamit Omar tamit moo ñu ko wan moo taxe ñu sañ a jël suñu doom tuddee ko ko wax dëgg yàlla ku baax la ku oyof la man daal dama kontaan daal mënu maa wax kontaan naa trop wax dëgg yàlla. non non non ma woon xamoon naa ne moom la ko tuddee ndax tur bi moom moo ko moom moom macha allah. Mhm. ah di wax kontaan nañ ci moom rek <laughs> kontaan naa daal ci moom daal vraiment waa ah métti na trop métti na mais yàlla baax na boo amee ku la ci bëgg moom yërëm la rek jàppal mu dëgër parce que góor mu wax dëgg yàlla ñoo yem daal mais di ñaan yàlla rek daal yàlla musal ci seytaane ak cet ak lépp daal loo xam ne day lore daal waa ah, di ko wax moom moom lu ma war a wax lu ma ko bëgg a wax xajul ci ci ci ci internet yeeg yooyu noonu vraiment li may wax chaque jour damay du ma jug ci di ko gërëm vraiment yërëm na ma bëgg na ma teg na ma place wax dëgg yàlla di ko ñaanal rek ci kaw ci kanam mu toog bay dégg roi des arènes yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah. waaw <laughs> merci beaucoup. comme ni ma leen ko duttalee rek ñu ngi nii jàkkaarloo nga xam ne mooy yaay Sa Thiès yaay booy nuyu nañ la. ba ba xanaa xool bu sedd guy na galaas wax dëgg yàlla sama xol daf cee sedd mënuma sa wax ma ci sore. xanaa gërëm ko maa koy gërëm di ko sant dafa dafa may mag di cër may waajurami cër may andi jàmm cër Sa Thiès bàyyul kenn wax yàlla. xaw ma loolu ma koy wax xanaa di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér ak moo magam yëpp waaw. ñu gis Sa Thiès rek mu ne man maay sama caatu yaay sama xaritu yaay ñoom ñaar kan moo ci sa favori. kii sama xarit euh, sama caat la waaw ñoom ñaar ñaar yëpp yem ci man. Ah, ñoom ñaar yëpp kay <laughs> waaw. diggante bi ma ñaanalee rek laa non du ma fen bàyyi naa fen diggante bi ma Omar ñaanalee ñetti fan ak ñeent dama fee téye xaalis bu tax barki yonent bi du ma fen kon yal yàlla defal jàmm saako mi wër naa ba sonn ñëpp a takki masque nag wër naa ba sonn Salif mii laa fi gis waaye sarak ji biig bi nu waxtaanee ci guddi gi bi may tëdd yaayay woo ma appel vidéo jotoo dootuma fenal kenn te dootuma bëgg lu neex nit ñi ba wax loo xam ne ëllëg yomal xiyam ma koo amagul mu ne ma maas ma ne ko naam mu ne ma yonent bi laay tudde ma ne xam naa ne danga may nax duubalees nga koy tudde ndax Mouhamadou Sakho génn ca Mouhamadou Rasulullah lañ tudde sa baay mu ne ma man daal li wax bi laay tudde ñu xëy suba sama gént naxuma Omar woo ma affaire vidéo yàlla na jàmmam yàlla jotuma fekk ma tëdd

te euh, yàqu yàqu ci famille bi dara aussi xam mu nekk suma mag nekk suma nit waaw fierté bi mu amee tuddee suma taw papa aussi loolu laa am ba tuddee ko dëgg yàlla. waaw loolu dara yàlla moo ko sàq parce que am na ñu bokk ndey ak baay ñu mënta ànd am na ñu bokk ndey ak baay ñoo xam ne chaque jour ñooy ànd ñoo gën a ratax li ñëpp tey da nga gis Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye koo gis gisee Aziz ngi gis Baye ci wet bi kon loolu àdduna la xam parce que tamit euh, jàmm moo ko sax ak kenn ku ne xam ko ne yaay kan respecté na ma jox na ma cër gi ma moom delloo naa ko ba it moom mat sëkk looloo war ñu mën a def waaw parce que ñu ñëpp benn lañ <laughs> ñëpp benn lañ mais sama mag la sama magu bopp la franchement parler xam nga di nuyuwaale Ibrahima bu baax a baax moom mooy suma taaw yaay mais Malal moom mention spéciale mooy suma taaw papa parce que xam ci moom lay woote aussi parce que moom mi nekk taaw boo toogee suñu biir da nga naan mooy caat waaw lu loolu lañ koy wax lu loolu lañ koy wax lu ne lépp da koy dëkk toog xam nga an ceeg ñun amul benn problème àdduna parce que tamit tay bu ñëwee ba ba si fii mënuñoo am benn benn benn benn âge bi ba yegg suñu bopp ci dara ñu ngi maa ngi remercier ñëpp rawatina sama soxna ak sama goro ak njabootam gi yëpp wax dëgg yàlla maa ngi sant ñëpp sama papa aussi maa ngi koy ñaanal gudd fan moom it ak jug ak jàmm ak salaam ak sama yaay wax dëgg yàlla waaw. laaj nañ ko ne ko kuy bi. léegi mu nekk caat bi wala. ah, ah fan la waxe fu mu fu mu ah, am na fu mu rëse eh, fii nii ñu toog nii faral amoon na lu mu ko fi waxoon mu ne Omar sama doom la sama xarit la waaye caat moom <laughs> sama caat la c'est-à-dire que sama yaay caat la ma caat laa loolu moo ñu mën a def loolu kenn mënu ci dara te eh, bu doon sa saako du doole noonu waaw sama sama ne daa bàyyi patron ma muy ñaw xale la amul boo paree na nga liggéey dina liggéey ci Baba rek na yan jikko moo la gën a nekk nga xam te ne mooy Balla Gaye ba nga duppee ko sa doom bëgg na bëgg la jàmm te nit ku dëgg la rafet direct waaw boo doon toog nit di jaw bis boo paree dana wëlbati woo kooku ne yaa ne diw ne yaa wax lii nit dëgg la te nit la boo xamante ne lu mu am yéene na la ko lu mu gis ci lu baax yéene na la ko. waaw loolu du dara ndogalu yàlla la rek moom laa se moom laa wax léegi rek dama ne am na ñu bokk ndey ak baay mënuñu ànd am na ñu bokk ndey ñoo gën a neex fuuf ko sama diggante ak moom bokkuñu sax waaw bu dëgg yàlla mag la mag mag mag mag mat mag la suma nit la suma xarit la suma suma suma famille la suma darat la wax yàlla maa am man maa am bonheur tuddee ko. dëgg yàlla démb ci heure bii tey ñu bëri dañu mën a ko ñëpp ñu bëri xalaat na ko moom laa ko tuddee mais dama ne leen tuddoo ma ko waaw noonu laa def parce que bu doon sama sago tur bi dañuy jékki-jékki jékki ko seen nopp mais comme ñoom it xam nañ sama yéene ak sama cofeel sama diggante moom moo waral ñëpp jàpp nañ su ma amee doom moom laa ko war a mais xëy na loolu jiitu na du tey jërëjëf. bi wala waa ceeb bi des na waa ci kanam. <laughs> Euh, kii nag boo ko gisee yaakaar naa dootoo ko laajte ci Salif nuyu naa la. waaw fay nañ la. man nga sa la xam nga moom li mu def dafa def lu ko war rek. li mu def moom mooy li ko war ko parce que boo nekkee ak sa mag bañalu la dara de na ni mooy papaam quoi parce que moo ko defal lépp man mi ay millions la may jox ba Salif di bëri. xam nga naan ma foo war a dugg duggal kon xam nga ni kooku bu ko defalee lii wàccul quoi mais nag des na yeneen yu mu war a def parce que war na ko yóbbu màkk war na tabax kër dugal ko ci war na ko defal lépp te bu si yàlla àndee la lépp dina am ndax Omar moom boo bëggee dégg-dégg soxna si nit ku baax la quoi ñun ñii dañuy defal lu nekk xam nga kon bokkul kon c'est normal quoi dañoo bëgg daal. non ni ñu koy conseillé ci mooy mu nekk fi mu war a nekk tam mi ngi fi quoi xam nga nag làmb dafa bari dafa bëri ay ndok-ndok bu la dalee ñëpp dañuy xalaat ni lii ak lu nekk la mais saa kee lu mu war a nekk rek la nekk mi ngi ci am mi ngi ànd ak ñu mu war a àndal mi ngi ci këram toog. kon li ko war mooy ñun la te nañ ko def rek loolu la non Garga Mbossé et puis Gris Bordeaux mi ñu ngi koy ñaan chance nañu may chance di bëre ak moom parce que bim waaw parce que bim tolloo ci may chance Gris dañ ko may chance kon nañu may chance ñu bëre waaye non si nañu may chance parce que at yaa ngi dem ñun suñuy at des na te moom ay itam ay itam a ngi dem ñun suñuy at nag des na lu bëree bëri nañu may chance ñu daan ko yëg defi leneen rek.